mu mel ni kon euh, yëf yi diggante exécutif beeg législatif bi bu dee législatif bi peut-être waa Benno Bokk Yaakaar seen député la ñuy wax euh, mu mel ni yëf yu bëri bukkeek mbaam la rek ku gën a muus sa morom daal jéem ko daal oui xam nga politique dañ naan jeu de ruse la ak jeu de dupe. Hmm. nest pas. et loolu na ñuy dund actuellement malheureusement entre je ne dirais pas sax la classe politique mais c'est entre Pastef et Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo nekk ku nekk di lal ay pexe ku nekk di wax c'est vrai que man jàpp naa ne li nga xam te ne nii mooy wàllum euh, euh, démocratie animation bi c'est le jeu politique mm. ci la bokk mais dans la contradiction d'idées plutôt mais nekkul ci ay xuppaate ak ay menaces nekkul li nga xam te ne nii tey sénégalais yi moom lañ soxla et tey boo xoolee dans cette histoire lépp l'opposition joue son rôle divertir leen sonal leen au lieu que le pouvoir def focus sur les urgences de l'heure ñu ngi leen di topp ay woy Ousmane man bu doon may Ousmane Sonko topp ay motion de censure et après man jàpp naa ne un premier ministre quand war nga am leneen loo tal lu dul toog di tontante ay woyu motion de censure du fi am ak dinañ dégagé wala dinañ fi jógeeg nangam ak nangam c'est quoi ça mais nit ci boppam munoo nekk kilifa nekk premier ministre ak li lay xaar lépp six mois ngi nii boobaa ak léegi réew mi demul dikkul réew mi kale na kat amoo leen leneen looleen leen wax lu dul ay wéy loo xam te ne nii législature boo xam ne ne pratiquement mi ngi mi ngi tiré à sa fin am na leneen ci loo xam te ne nii loolu la sénégalais yi di xaar et véritablement loolu moom moo ñu gën a soxal lekkuñu ñu mënuñu faju nit ñi am nañ problème xëy nit ñi am nañ problème paas nit ñi xale yi xëy ñu ñi ngi jël ay cag-cag di ñi ngi leen ciy faat ña nga nekk ci hôpitaux yi nekk fa ay réanimation ñoom ñoo nekk ëpp ca morgue yi ak yeneen ak yeneen voilà les sujets yoo xam te ne nii moom mooy gën a intéressé sénégalais yi et loolu nekkul loo xam te ne nii moom la ñuy xaar ci opposition bi opposition bi day jouer rôle bu ko neexee mu leen galgal politique ak nangam ak nangam mais man jàpp na ak li xew jamono ji ak li Sénégal di dund sa waay métit gi fi ne ñoom waa pouvoir bi war nañ am leneen lu ñu tal lu dul di dugalante ay galgal ak génnalante ak ñoom seen mel ni ku nekk làmb ja mm-hmm. la soxla moom mooy il faut faire focus sur les difficultés yi nga xam te ne nii looloo tax nit ñi porté espoir ci ñoom ba fal leen pour ñu mën a jiite réew mi kon donc la xaar de grâce moom mooy il faudrait que quand même ñu transcender wu mën a départir ci yenn yi nga xam ne mbirum politique la réew mi soxlawul loolu bu ñu leen ci bëggee dugal ñoom ñu bañ a dugg ci loolu et malheureusement dafa mel ni ne mbirum politique boobu moo leen gën a intéressé fu mu nekk nii beneen bi moo dina lu jëm ci wàllum déclaration de politique général mais loolu waroon nañ ko régler bu nu yàgg. Mm-hmm. pourquoi fii ak si boobaak léegi si mois ñuy topp wéy Ousmane dafa war a dem déclaration de politique général moom it mu ay galgal fii intérieur réglement intérieur ba non non non doo leen ko tal nangam ak nangam mais véritablement après c'est comme si. dañuy on cache mal une incompétence wala lan moo xew mais vous êtes élu sur la base d'un programme sur la base de promesses yi ngeen xam ne gëmloo ngeen ko nit ñi mm-hmm. mais faites comprendre à ces la là li liñ leen gëm loolu la te waxoon leen ko véritablement ñu ngi nii et loolu nañ nekk mais ba léegi nii jusqu'à présent xamuñu dëkk bi fu mu jëm xamuñu dëkk bi fan la teg tànkam xamuñu dëkk bi kuy dawal dëkk bi kenn xamul fu nit ñi jëm donc véritablement li ñu gën a soxla mooy ni ñu génn seen jeu politique bi notamment le pouvoir ñu concentré wu et focus ci li nga xam te nii moom mooy améliorer les conditions d'existence des populations geneen fànn dañuy jàpp ne moom premier ministre kon amul yéene dem assemblée nationale ngir def déclaration de politique générale en tout cas li mu wone ba fi yëpp loolu lay nirool moom Alassane Balde nag jàpp ne nguur gi nga xam ne moo fi ne nekk ci loxoy Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko war ñoo mën a def lu yées loo xam ne ñi fi leen fi jiitoon ci nguur gi def nañ ko ñu déglu jàngatam. élimaani jëwriñ yi ndax daa lank ndaari tëdd si suuf ba jaral ko lu ne ngir mu bañ a dem defi déclaration politique générale bi loolee mënees nañ ko njortes ndax tegul dara lu mën a tax rek ni xel mën naa dal ni Ousmane ko bëgg naa def defi li nga xam ni mooy déclaration de politique générale bi ci njàppandalu nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaral leen ñu nësaxal doxalinu suñu ay institution déet gaay yi amu leen sañ-sañ bu ni sénégalais yi mérité wuñu lu ni men bawoo ci yéen gannaaw yaakaar bi ñu gàll seen ndodd waru leen def lu yées Senghor Abdou Diouf Abdou Abdoulaye Wade dem sax ba ci Macky Sall politique juraluñu leen lu dul ay jafe-jafe dem sax ba sëngeem ci ñetti at yu ñu génn gannaaw li nii ci ay bakkeen jaare ko ci ay manifestation waxtu politique am na waaye waxtu liggéey dafa am rawatina si sunu réew ci jamono ji ñu ne ñàkkum kaarange bi jaare ko ci agression yu bëri ñu nemmeeku tax nag ba waajur yu bëri nelawtuñu raf ci dool yi inondation yi accident circulation yi nag mel ni tulleeg male ak lim bi ci doomu aadama di ñàkk seen yi nga xamante ni bés leen dàq seen bërëbu liggéeykaay ana lan la ñu mën a wax it ci situation économique bu jafe bi nga xamante ni way jure ci la ñu ne ne matale ñetti pendanaar yi doon lu leen te huit kon bokk ndax duo Jomaay Sonko wax la ñu gën a mënee ëkk li nga xam ni mooy jëf laaj bu ni men doon lu ñu mën a samp jamono ji voici Trafic News. ku fi ne. allo ku fi yaa ngi am jàmm naka dem beeg dikk bi ci mbeddu Ndakaaru yi. Euh, jàppal ni jamono ji may àddoo ngay teelu dem njëkk di def daw laaj la xam rek moom moo tolloog foire foire mu ci ni jafe na lool ba jéggi dayoo ba tax rek da ngeen di loolu yàgg yàgg laata rek ngeen koy dépassé bari ñoo fiy rappeler aussi tout à l'heure bàyyeekoo nañ fi nga xam rek moom moo di passerelle bu Nabi Suker foofee bàyyi nañ fay jafe-jafe loole nag mi ngi concerné yéen xam ne ne bàyyi ko foire ak ay environ trajet moo am

buñ dellu see ci xibaar yi dañ leen di ne Aminata Mbengue Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo nekkatuñu kii présidente au conseil des collectivités territoriales ka ca des président conseil économique social et environnemental démb le président de la République tekki seen ndombo tànk mu mel ni yëf yi kon fayantoo bi diggante euh, ci xuloo bi nga xam ne moo am ci diggante nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo fare ci assemblée nationale euh, démb sax dégg nañu Ousmane Sonko ginnaaw bi muy dajeek agent primature euh, doon leen xamal ne bëccëgu démb gars yi ma tudd léegi léegi du ñu fanaan ak seeni i ndombo tànk yi nga xam ne moom la ñu amee woon te lool dégol bi jëloon nañ ko ba pare ci ginnaaw gi nag lañ ko siwal naka démb ci euh, ngoon euh, mu nekk tamit loo xam ne amaana ñu bari ñu ngi ko doon euh, xaar li Sénégalais yi di xaar ci assemblée nationale ak coow li nga xam ne moom moo am ci jamono ji seen diggante ak nguur gi ñenn ñi jàpp nañu ne yenn institution yi dëgg la mën nañu leen fee jëlee ña ca des jàpp ne député yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu du dara lu muy tere nguur gi nga xam ne moo fi ne ñu def seen i liggéey reportage ci mbedd Ndakaaru Tidiane Diallo ak Madani Marega bari ci dëkk bi ñu ngi suivre bu baax a baax lu xew ci assemblée nationale ku nekk am ci xalaat. li nga xamante ni moom lañ avancé pour bëgg a ñaari institution yooyu c'est tout à fait normal man miy wax yow euh, ci monde rural laa dëkk baykat laa dama béy ba màgg. tey buñ dissoudre euh, ñaari institution yooyu parce que man gisuma gisuma njëriñam. politique bi moom assemblée bi moom il faut ñu tas ko moom. mais vous pouvez boo xamante ni a des yoo xamante ni tu tu moi je xaalis bi mun na dem ci xale yi mun na dem fépp mun na liggéey réew mi. waaw ndax xale yaa ngi toog amaguñu liggéey amaguñu dara te loolu yëpp ginnaaw député opposition yi déposé benn motion de censure ngir daaneel gouvernement bi ñoom nag dañoo jàpp ne loolu du événement. loolu loolu c'est non loolu y a pas sens loolu je n'ai rien à comme réponse sur ça. ñu bari ci ñoom dañoo seetlu ne mbir mi waxtaan amul diggante opposition bi ak nguur gi loolu moo waral crise bi ñuy dund fan yi. waa loolu moom loolu moom bon comme gatsa gatsa bi fi nekkoon ci Ousmane Sonko waaye ñoom ni ñu utiliser terme bi damay wax ne baaxul ci ñoom. waaw parce que nit boo nekkee opposant da ngay avancer ay xalaat yoo xamante ni peut-être dana amal njëriñ sa askan dana amal njëriñ réew ñenn ci askan wi nag dañoo jàpp ne jot nañu tas assemblée national ak institution yi ñu jàpp ne amuñu njëriñ ci dëkk bi te nag waajal élection législative yi ngir tabaat yeneen député